seeti parce que tout le temps dañuy seet si artistes pour découvrir seen produit yu rek mais tamit pour ñom bu ñu amee message bo xamné bëgg nañ ko wax wala am na loo xam neexu leen ci doxalu musique bi dañ leen di set ci ñu daal di waxtaan ak ñom Pendo ñu ngi lay nuyu. wa waa asalaamaaleykum ma ngi leen di fay bu baax a baax yéen waa Pikine nii na Yacine mi ci liggéey bu rafet bi dëgg neexul. <laughs> Pendo kan moy ministre de la culture. ministre de la culture yàlla xam na ne xaw wax dëgg yalla xaw ma turam. lutax lu waral loolu. non parce que ministre de l'agriculture bi peut-être euh, du man kese ah man je me suis soo ko laajoon artistes yu bari dañ lay wax ne la xamuñu kan la. Mm-hmm. te loolu ñaaw na ci dëkk. Mm-hmm. parce que man toog naa ak ay artistes yu bari yoo xam ni laaj naa leen kan mooy ministre de la culture mais xamuñu ko. Mm-hmm. ñun am na si sax ñoo xam ne Matar Ba la ñu wax ñii naan ay Auguste Senghor franchement. parce que nag yàgg nañ ci aar bi mais man ministre bii nii xaw ma ko wax dëgg. est que du artistes yi ñoo gëstuwul ñoo gëstuwul seen ministre kan la est-ce que mais est-ce que dañ ko war a gëstu ñun ministre bi man man dama foogoon ni ministre la culture bu ñu ko waxee tout le temps parce que nag euh, li ñu wax ni fekkee waral jàmbat bari man dama fekkee ministre yoo xam ne nekkoon nan fii parce que nag yàllaa bëgg dëgg man lu ma wax rek sama bàmmeel lay taxaw parce que nag dee bu waree ñëw pour man ñëpp dañuy dee mais yàllaa bëgg dëgg xam nga Macky Sall dafay nekk mu nekk président bu baax boo xam ne ñëpp dañ ko bëgg respecté koy tout jabaram nekk fi te jabaram boo ko xoolee da ngay xam ne kii ku bëgg ambiance bu ñu bu ñu mayoon espace ma bu fekkoon ne jabaru président dina nekk ministre la culture ma def ko Marème Faye Sall mhm. parce que xam naa ni bëgg na bëgg na bëgg na kii quoi bëgg na da nga koy gis toujours day firi moom bu fu bu nekkee si biiri nit mais bi fi Ablaye Wade nekkee maam Biram juuf moo nekkoon ministre la culture bi mu fi njëkkee maam Biram Diouf bi mu ko nekkee xanaa duñ toog weer woo xam ne déggoo artiste Sorano yi laa wax mhm. damay wax bu baax a baax li may wax xam naa ko bu baax parce la ma doon fekk du ñu toog weer wala ñaari weer yu événement amul jaxaw ñu jël artistes yi nekk euh, Sorano yëpp maire yëpp lañ doon jël ñëpp yóbbu leen yóbbu leen jaxaw ñu daje fa ak artistes yi nekk foofu yàlla bëgg dëgg dëgg rek laay wax Serigne Modou Bousso lay bi mu nekkee ministre de la culture nit ñi xamoon nañ ko bu baax a baax franchement ndax loo xewle boo ko yëgalee dafa ñu mais ministre bi dama boo gàddu woon léegi sa caméra nga dugg ci quelques artistes laaj leen kan mooy ministre de la culture xamuñu ko. yow léegi artistes yi fi nga xam ne foofu nañ tënk foofu mm-hmm. na ñuy daje muy euh, SODAV mm-hmm. euh, te mu nekkoon BSDA mm-hmm. ndax membre nga fa man BSDA duma fa dara membre mooy mooy ku am carte adhéré nga adhéré adhéré naa parce que adhéré naa am naa carte carte ngi nii carte BSDA ngi nii banane la woon bi carte BSDA bi mu ngi nekk euh, le vingt cinq 12 euh, euh, deuxième mois 2015. 2015 2015 2015 laa fa adhéré woon mhm. boobu ba léegi nii. Mhm. lan nga ci yow en tant que artiste SODAV ñëw remplacer BSDA. wa man nag euh, gis naa fa daal ay nit yoo xam ne yaakaar naa ni bu fekkee fa te di doxal moom mën naa nit ñi ñep mën nañ ci gis seen muy Ngone Ndour muy Gise Pen gis na len fa du dëgg donc ko xam ne adhéré fa depuis 2015 kon koku Euh, nu mu tudd sax musuma cee fayeku cent franc te samay œuvre mi ngi foofu. musuma fayeku. fukki dërëm musuma koo jëlee ba euh, bi ma fa bi ma fa nekkee ba tey jii ma lay wax nii. Soda bi mu ñëwee yàggul BSDA ku fi jiitu sama publicité man def naa ko fa depuis 2015 muy joni joni ñu di ko dawal depuis 2015 ba 2019 ñaataat la mhm. musuma caa fayeku cinq franc musuñu maa woo sax ne ma am nga fi fukki dërëm. Sodav bi mu ñëwee nag nga xam ni moom dafa ñëw pour soppite indi changement est-ce que tamit yow dem nga déclarer dem nga pour pour fayee ko. non dew ma pour fayee ko parce que woote wuñu pour nit ñi fayee ko parce que man je me suis dit dafa war a nekk comme ministère. mais BSDA demoon nga pour fayee ko. BSDA dem naa fa heure bu ma demee ñu ni ma xamal ma ni ma waa euh, Sen TV indi nañ fa xaalis mais indi lee guñ leen programme mm-hmm. ma laaj ko Momy ma ne ko waa moom yéen sama publicité bi ma leen bi ma def fii euh, depuis 2015 ba léegi fayeekoogu leen muy jooni jooni ndax man maa ko bindal sama bopp euh, lay jaañ moo ko moo ko moo def musique bi parce que nag nit ku nekk li ñuy wax ne boo nekkee Sénégal danga nga war a xam sa ay droit d'abord nit ku nekk ñun war nañ ñu wax leneen ndax Sodav lu mu war a yëkkati wala BZA lu mu war a xewle dañ ko war a publicité ba ñëpp yëg ko est-ce que nga peut-être ñu ngi koy liggéey mais xamaguma ndax am dañoo dañoo pareegul ci li ñuy liggéey ba tey 2015 ba léegi nii fukki dërëm ñeen fukk laax mosuma koo laal ci œuvre bi moom moomal sama bopp est-ce que waroo woon dem SODAV comme dem naa dem naa BSDA ñu wax ma ne ma ba waxloo ma naa bind lettre ba ma bind fa lettre ba teg ko fa ma woowaa Sen TV ma ne ma ne moomi ma ne ko man li ma jaaxal mooy BSDA boobu ba léegi maa ngi fay dem mais mosuñu maa jox dara ci sama publicité bi te publicité bi daanaka daw na ba est-ce que mi ngi dawati sax est-ce ma wax leen ko ñu dalal sama xel ne ma amul problème loo fi am rek bu sooba yàlla dinañ la ko jox mais waa Sen TV li ñuy xaar ñu indi programme. waa waa Sen TV ne ma ñoom waruñu xaar ñu jox leen programme euh, xaalis nga fa am xam nañ ne publicité nangam ak nangam la ñoom nañ la fay parce que xaalis baa ngi foofu kon loolu mënut a dara ma demaat BSDA ñu xamal ma ne xaalis baa ngi fi mais dañuy xaar Sen TV jox leen programme bu ma woowee waa Sen TV ñu naan ma ban programme la ñuy joxe ma woote fa dañuy wax ma à la dootuma xam peut-être so soda bu ñëwee dina ma wax loolu parce que euh, wax naa ko lancé naa ko keroog euh, Ngone Ndour ma ne ko yéen ñaan ñii laa soxla woon ci bi ñuy joxe raayu musique bi may leen yéen ñaan ñii laa soxla woon parce que nag man je me nit bu fekkee ne artiste nga ña fa ne ña ci gis seen bopp man bokk ma ci. ñay gis seen bopp ci BZA wala Sodav. mais est-ce que dañ laa gisul mooy li ma la wax Pendo est-ce que du yow waroo woon bi nga ñëwee rek est que waroo woon dem. mais Sodav est-ce que man naa ne dañuy dem xam nga tamit euh, dafa am loo xam ne buñ ko dénkee ay nit. ñu nekk ci dëkk bi normalement bu fekkee SODAV li muy liggéey bu fekkee BZA dafay nekk nit ñi gisuñu si seen bopp wala ñenn ñi ñoo ci gis seen bopp parce am nañu si gis seen bopp am xam ñoo xam dañu si gis seen man gis naa si koo xam ne da ciy fayeeku heure bu ñëwee def ma wax fii mag la dañ koy woo wala day dem noo xaw ma ndax ñoom ñoo koy woo wala ñoom ñooy dem mais BZA wala SODAV ak lu mu ci mën a doon war nañu mën a yor liste numéro artistes yi nekk Sénégal yëpp ak yi fa am œuvre man si li ma yaakaar bu fekkee ne benn télé fayul wala benn rajo fayul nañ ko yëngal ba ba artiste yëpp génn loolu moo gën a yomb. mars bi ñuy wax ni ñun bu ñu bëggoon a mars nii préfet du ko tere Macky Sall du ko tere. parce que xeexu ñu xulóowu ñu xam naa ne dinañ yor ay sabarak ay bongook ay tama ñëpp di dox di dem di tëgg sabar dem ambiance kaas li ñu moom. parce que BZA bu fekkee ne matale wuñu wala euh, SODAV li ñu soxla nañu génn ñu wax kook artistes yi ñun ñëpp ñu takku ba dëgg ñu génn parce que nag droit la boo xam ne ñun ñoo ko moom. waaw mais mais mais 50 millions yi nga doon wax 50 millions SODAV yi. 50 millions yi dama dama ko dégg rek ci benn membre sama sama sama kilifa gi comme moom membre la fa Oumou nag 50 millions yooyu maa ngi dëkk fii tout près man si umu laa déggee muy wax sax loolu 50 millions xaw ma nag ndax daaw la 50 jot na dugg Sodav. waaw jot na jot na dugg Sodav. jot na dugg Sodav waaw Noël bi sax touché nañ. ah waaw umu looloo ma looloo ma daaneel nag li umu ne Noël yi te ma dëkk ak umu fii tout ma cee sedd loolu yëguma ko franchement yëguma xanaa ngay seetaan télé laaj nga leen. non laajuma leen. démb woo naa ci démb am waaw laaj naa gisee pen. démb laaj naa ko mu ne ma loolu moom wax bu taxawul la mais après peut-être man tey euh, suba wala ginnaaw suba dinaa fa dem ma toog ak moom ma wax parce que man nag fi nga may gis nii artiste laa boo xam ne artiste bu engagé la parce que parce moom administratrice la fa moom moo jiitee moo jiitee artiste yi waaw danseurs yi waaw moom loolu muy wax war na ko wax waa kon umu moom ci danseurs yi lay wax léegi man kon su may dem tonton Guissé Penda amul waxul ci danseuse dafa ne cinquante millions. waaw dugg na. waaw loolu gis nañ ko ci YouTube bi loolu kay ñëpp gis nañ ko. umu ne cinquante millions dugg na mais cinquante millions dugg nag. sama pël laaj sa waal waaw pëlu sëñ Fallou boobu cinquante bu duggee wi te nu jege nii tout pare danga may woo. Mm-hmm. parce que tam man je me suis dit que lu mën a dugg ci àdduna lu sodaaf di bëgg a def wala lu BZA di bëgg def artiste yi war nañ ci gis seen bopp parce que man bugguma kumba am nday kumba amul nday daf may daal daf may daf may merloo parce que Sénégal la ñu nekk droit artiste bi mu am mooy nga génnee sa yëf nga yóbbu ko BZA nga jox leen ko wala SODAV nga signé ñu signé du dëgg xam nga ko adhéré depuis 2015 ne la yoruma jo musuñu maa fay fukki dërëm tama am fa ay œuvre ñetti jooni jooni dugg na biir biir biir biir foofu bi ma njëkk a génnee bi si topp ak bi si yëpp ma yóbbu ko ñu teg ko ba mu jeex tàkk est-ce que nga muy sama droit kon man je me suis war naa koo demander waxaguma sax waxu sama way bi mais sama jooni jooni bi fa jiitu ba pare parce que bala ngay wax liy doog a ñëw nga wax li fa jiitu ba pare. d'accord du dëgg. d'accord léegi boobu jooni jooni la woon sa woy bi nag euh, gis nañ ko si YouTube bi. Mhm. gars yi bëgg nañ ko gis nañ nombre de vues yu mu am ci YouTube bi. Mhm. boobu moom xanaa laal nga boobu doo kaas. non boobu boobu boobu laalaguma dara sax waaye man xam naa dinaa laal. ah li tax laaloo. waaw parce que laalaguma rek parce que peut-être ki ko yore. parce que man peut-être nit da ngay wóolu sa sa nawle parce que man. Euh, dañuy wax des fois tubaab xamul waxi neen sax ay kayit la xam du dëgg léegi laay doo nga xam ne tubaab waxul waxul waxi neen ay këyit la xam mais man waxi góor moo ma gënaloon lu ma mun a am mais ki ki nga xam ne moo ko dugal ci biir kontam muy Papis aar bi management moom xam na man xam naa ndax cerse lu ma fay la damaa fay sama xaalis pour ñu tourneel ma sama clip du dëgg ma jël ko mu dugal ko ci compte YouTube am est-ce nga kon lu si mun a doon rek mooy dañ koy teg carte sur table day leer parce que nag li ñuy wax ne ñàkku jàmbur boo ko lekkee amaana doo ko fekkee kon def gëm naa ni papis du lekk sama xaalis te man it maa ngi toog di ko xaar bu ñu paree pour calculer li ñu am ci vue yëpp ñu toog teg ko ci table ñu seddoo ko lu waaye am jël. d'accord mais mais mais clip bi yow da nga woo papis nga fay ko. dama ko fay waaw. yow yaa jël frais clip yi. maa jël frais clip bi yëpp maa luwe kër gi. Ah, mhm. maa fay artistes yi maa fay papis ñaa ci boppam. Mhm. man clip bi kenn wax wax nga dépensé ñaata ci clip bi. Euh, kër gi rek 250 000 lañ ko luwee fi ñu ko luwee fi ñu defaree clip bi. Euh, Pape Signa ma fay ko li ma ko fay mën naa ko bañ a wax sax si télé bi parce que loolu peut-être secret la man ak moom. voilà mais mais mais mais bari na. bari na li nga dépensé waaw li ma mais mais est-ce que tamit du artiste yi dañuy ñëw nga tourner leen clip ba pare. Mhm. comme yow sa compte bari na abonné bari na mhm. vue ñu bàyyi nga teg ko fa. léegi la artiste yi commencé yow est-ce que du loolu est-ce que yow yaa jëloon lépp dénk ko ko kon yow yaa ko jox droit yëpp. non non du droit yëpp man Pape Signa dafay liggéey ak man. Laye Diagne ñi mu ñi ma defaree son bi te fayuma ko dërëm Laye Diagne defar kii bi mooy bati sukuma gawlo LSD record. waaw Laye Diagne. Laye Diagne waaw moom da daf ma dama ñëw te laaju ma dara ma woo musiciens yi ñu jàpp ci te laajuñu ma dara gor laa Papis ñaa ñëw ñuy tourné clip bi ñu toog waxtaan si ñun ñëpp ñu wax ba mu leer. xam nga koo xam ne peut-être peut-être ñu bëri loolu moo leen di réeral ndax man xaw ma xaw ma woon ni sax YouTube dafay fay man bi ma xamee YouTube dafay fay yàggul barke Khalifa Malick musuma xam ni. YouTube boo fa dugalee dara dañ na koy fay barki Alaaji Malik xaw ma ko woon bi ma demee Europe laa toog ak ay nit ñi di ma ko wax ne ma penn instant bi war nga am xaalis may leen kon xanaa pakaay mbay day tourné day roulé kon kon 4-4 la pakaay di yore du dëgg may leen li tax ngeen wax la ñu ne ma am nga ba nga commencé am 1 million de vues lañ la commencé fay wax ma ba wax ma ban ñaata euh, le kañ ba le kañ la xaalis di dugg ci YouTube bi est ce que comprendre nga lu ma bëgg a ñoo ñoo ñoo rajaxe Sénégal waa Europe ñoo rajaxe voilà ñoo ñoom ñoo tooyal bi ñi tooyal bi daal <laughs> sa waay Italie la ne ñi man Italie laa yeewoo man xaw ma si woon damay leen man xaw ma si dara mais xam naa ni ki ma ko jox gor la ka tax ma jox ko ko muy laay jaañ gor la dem ba sama rakk mi tax ñu wax ko parce que du abonné yi moo tax parce que ku amul 100 abonné munoo am 2 millions de vues est-ce que nga ma. boo amee cent abonnés mënoo am 2 millions de vues 100 mille 100 abonnés rek nga mën a am 100 100 100 vues rek nga mën a am. non mën nga am lu ëpp 100. du dëgg ñooñu dañ la fàtte wax loolu. waaw moom laa wax dama la bëgg wax ne maanaam tey boo fekkee ne loolu rek la woon kon doo ma envoyé lien bi ma envoyé ko ñi ma xam du dëgg. mais naa ni peut-être lim ma papis wax wax wax bu dul dañ parce que man wax laa. mais mais mais xam nga yow nee nga bi nga xamee loolu yàggul. waaw kon yow yéen ñaar da def clip bi ba pare Mm-hmm. xam nga bi ngeen defee clip ba pare waxoo ko YouTube bi boo ko dugalee sa chaîne YouTube loo ci am maak yow ñoo koy séddoo. non non mais man dama ne dama ne Papis dafa ne ma dañuy liggéey mm-hmm. dañuy liggéey mm-hmm. parce que nag euh, sama frère la même bu dul liggéey euh, way bi sax am na beneen liggéey bu ñuy liggéey man ak man ak Papis du dëgg donc dañoo def def clip bi ba pare laay jaañ ak Demba gisee sama rak ñoo ko ne. mu ne leen laajaañ léegi nu ñuy def clip bi laajaañ ne ko comme Penda mi ngi doog a génnee kaset kenn xamu ko jël ko nga dugal ko sa sa sa sa sa kii nu mu tudd sa. sa chaîne sa chaîne. nga ne waa comprendre nga. ñu dugal ko fa ñuy liggéey man ak moom dem naa fi Italie boo xam ne ci Papis Niang la jaar kon man ak moom YouTube boole wuñu ah, kon kay jeex na kon kay bu jëlee YouTube léegi non non du cadre da koy jël mu garab parce que sama ñàkk la man maa ko moom. loolu loolu non non est que xam nga luy problème bi man je me suis dit que même même même même bu dul Papis keneen ku dul Papis kuy liggéey si loo xam ne loolu la artiste bi ko def bi muy bi mu lay fay xaalis bi nga ko wax joxoo ko ko mayoo ko clip bi ah. kon képp koo xam ne dangaa liggéeyal doomu adama mu jël ko sax ne la may ma ko xam nga ne ñàkkam la yow nga war cee fayeeku sa giiru dund waa moom anamu ak aar bi fi mu toll ñu ne aar bi dafa pëtëx aar bi dematul est-ce que nga kon artiste bi man su suma su ma déggee nit di wax ne YouTube mooy fay këram wala ma dégg nit ñi ne YouTube man moo tax ma jënd oto bi ma dégg ne YouTube moo tax man lépp lii ma am tey YouTube moo tax ma am ko waa mais kon lu tax artiste bu génnee œuvre même bu fekkee def la ko may te waxula dara mais yow am personne yow mi ko gën a xam mais xamal ko ni ko carrément bu amee un million de vues am nga ci nangam. waa léegi yow. waa Italie bi ñu demee ba yëngal Sénégal ba pare ba jaxase la ak ñi nekk Sénégal ba pare <laughs> est-ce que yow dem nga wax ak Papis. non Papis sama xarit la ñëw na ba fii nii. man ak moom ñu toog ak Laye Diagne ñu toog. Mhm. est-ce que nga parce que man je me suis dit sax wax boobu il est temps que sax nit ñi xam lan moo xew parce que ñu bëri dañ may laaj ne ma dangaa xuloo Papis xuloowuma ak Papis jotewuñu dara démb lañu mujjee wax man ak moom ma am publicité bi ma ko war a defaral kon xuloowuma ak moom li ma bëgg rek mu leer ci nopp sénégalais yi mooy clip bi papis moo ko dugal ci kontam mais la ci mën a nekk mu yées mu bari dañ koy teg ci taabal ji. waa léegi lu mu la wax moom. kan papis non pap loolu kay loolu jeexal nay wax. mu ne la lan dina mu ne carrément da doon xaar ñun suñu promotion bi daw. loolu noonu moo nekk loo xam ne lu mooy mujj si li ñuy liggéey. du dëgg parce que bi ma waxee ak moom man ko man papis xaw moo ne YouTube dañuy fay mu ne ma. waxtaan naa ak laay man maa la bëgguloon wax dara parce que li li li li ne suñu kanam moo ëpp doole fayeeku YouTube. effectivement est-ce que comprendre nga. parce nag nga dem ci tournée nga génnee cassette bi nga dem ci tournée dem naa ci Espagne dem naa Italie dem naa ci Paris dem naa ci Belgique fépp foo xam ne way boobu moom fa yóbbu te lépp ginnaaw yàlla ak yonent bi si loxo papis la jaar kon lu YouTube bi affaire la bu ñuy régler boo xam ne dañuy toog rek ne ah kaay leen nag. comme compte mais lu jotoon dugg sax ba ma jox ko musiciens yi. parce que man dama gëm loolu. Mm-hmm. am na lu ma jot a jox du dëgg non leneen laa ngi ñëw man xam naa day ñëw di ah. man kay xanaa Yacine da ngaa ñëw rek waaye Yacine loolu da nga waroon xaar bu mu ñëw ma toog fii nag ba ma <laughs> ba ma jënd oto waa non non Italie ak France ah. xam nga dafa sama xarit yoo xam dama lay wax ne dañ maa yeb am na ku nekkoon Amérique jeesu sare maa ngi koy nuyu sax mm. jeesu heure bu yeewoo danaan ma pend yii maa ngi marqué amagum nañ 2 millions mm. je te jure nit ñi dañuy calculer ba calculer xaalis bi ñu bi ñu am mm. comprendre nga Pakaay Mbaye aussi noonu laa ko doon wax maa ngi koy nuyu de leen wax ne leen képp koo xam ne am nga seen youtube lii laay war a suuli ki la ko yu yoreel yéen ñii seen compte bi ki ko yore na rikkarawaay na xam ni moomu ko est-ce que nga li ma parce que nag li nit ñi di jooy mooy loolu BZA mënuñu topp si BZA di daw ak Sodav amaguñu lu ñu gënal après ñuy toppaat si youtube bi di daw amaguñu lu ñu gënal dafa am loo xam ne lii moom pour bu nu deewee la yàlla na yeex sunu ay yaay yi nga xam ne ñoom lañ fi dese wala sunu ay rakk di ci am au moins parce que loolu mooy base bi artiste dañu waxante dëgg lii mooy sa carte BZA bi mooy sa carte d'identité SODAV mooy sa carte d'identité lu dëgg mhm. ñuy lancé appel ministre bi comme xamuñu la ñu nga génn dimbali ñu si SODAV ba ñu dèjà changé ñu carte yi comme nekkatul BZA du mhm. dëgg comme nekkatul SODAV wala <laughs> comme nekkatul comme ah nekkatul BZA man dama dara di lii léegi léegi euh, ñu tëjee ak millier musical bi mhm. nan nga ko gisee millier bi defante yu ñaaw yeeg siisante yeeg buuxante yeeg <laughs> Youssou Ndour ah. waxoon na xaw ma lan ku ci bëgg xaw ma lan di nga léewtoo ba tas waaw loolu moo ci nekk wax dëgg yàlla may nag euh, mën naa ñàkk daal du dëgg mën naa ñàkk parce que léeg-léeg sax euh, man mii dal na ma euh, du ma tudd turam sax mais artiste bu mag fekk na ma fenn ma toog mu nuyu ñëpp te nuyuwuma non noo ma lu ma ko def wax dëgg yàlla parce que mënoo mënoo nuyu ki toog sama kaw nuyu di way ñenn sama ginnaaw te man mi taxaw nuyu wooma ma fekkaat ko fi si même kii bi ma ne ko maa ngi lay diw maa lay nuyu sànq ba tey faalewu ma mënu ma pourtant dégg naa la sax ma ne ah ok xam naa ne bu ma dajawaatee moom du ma ko nuyu man pour leeralal ko ne ko la nga defoon dafa fay lii est-ce que comprendre nga parce yooyu yëpp mun naa ñàkk parce que man je me suis dit que yi ni ñu mel léegi dafa ñaaw am na yoo xam ne dara jaru ko ci àddina parce que nag ñoom ñi ci kaw bu ñu foogoon ne ñoo dàq way ñi ci suuf déedéet dañ ñoo njëkk a te am na si ñoo xam ne bi nga leen di xam boobu dara xewul nag am na ci artistes yoo xam ne barki rasulillah mën naa laa wax jour bi ma leen di njëkk a gis bi ñuy ñëw Dakar li ñu soloon barki Serigne Babacar Sy Malick seen démb mën naa la ko wax mais nag nañ ko rafetal est-ce que comprendre nga parce que fii dara jaru fii dara jaru fii jóg fii loo woy woy woy woy woy ba daje kii na lam da ngay xaar boo woyee woyee woyee ba gis Kumba Gawlo da ngay xaar yi dégg nga Kumba Gawlo li lim waaye est-ce que si kastam bi nii est-ce que comme tiitoo yow mm, man kasut Kumba Gawlo bi daf maa ëlëm barki Alaaji Malick musuma gis loolu noonu comprendre nga kon nag comme ñooñ ñooñu ñëpp ñëw nañ fi nekk ay waykat ñun nañ ko rafetal parce que man dama fi gisul dara lu jar loolu. mais mais mais nan nga gisee li xew léegi. artistes yi entre ñoom di enregistrante boo duggee ci Facebook di nga fa euh, wala ci internet bi di nga fa fekk enregistrement <laughs> ku ne ku ne di jëw keneen ki keneen ki di jëw man danan ma enregistré lu ma wax maa ko wax su kooku taxee ma ne ko maa tay léegi lan la nga ne ko privé la woon si lu ñu waroon a bàyyi Macky Sall bu fekkee am na ndogal googu xawma sax l'occurrence jili CSB la ko war a wax sax ñu tëj ki ñu arrêté téléphone yi ñu bàyyi ñu si 33 10 sénégalais xamul whatsapp xamu ci lenn parce que lu bon rek lañ ci tax a jug ñun xam nga chinois bu ndaw boo ko pinee doomu chinois est-ce xam nga mooy defar écouteur yu ndaw yi xam nga lool écouteur yu sans fil yi nii kii yi ànd ak kii téléphone yu baaxee iPad yi boo dóoree doomu chinois ba mu mer ba dugg ci ruq moo koy defar <laughs> yaa may dégg waxambaane chinois bu meree dëgg télé lay defar <laughs> waxambaane maire maire maire yi buñu buñu buñu buñu buñu ñu deug deug deug deug ay décodeur ak radio lañuy défar sénégalais rek moy maire def nawlem lu bon pour lan ba paré buñu ñu di wax ñunu ki ne man Tidiane laki ki ne man Murit la ki ne man Layen la ki ne man khadir laki c'est quoi bi yàqante bi yàqante bi pour lan ba paré après bo leen jugee té te kaay hypocrisie bi ci nek mo ëpp ku nek day tax mom kay pend jotewuma ak mom dara mom kay diw jotewuma jote waa nga ak mom dara mosoo naan ndoog moom ataay c'est faux ku la ko ci wax waxul deug ku la si ne dem naa kër diw naan fa ataaya no waxul dëgg bu pexam juboon du fa naanee ataaya nañu arrêté comme man mi nga xam ne déjà aar bi man yàgg naa aw ay nit yàgg naa ci yàgg naa jamonoy Birima Sambay Sarr sama greffage bu tuuti ba ma tegoon ci clip ba ba léegi maa ngi koy fàttaliku est-ce comprendre nga comme boobu laa la xamoon yow artiste bi nga dem ba léegi nii peut-être nga fekk ma fi ma toog nuyuwuloo ma amul njëriñ xam na li may wax moom xam na kan la te ba Serigne Babacar Sy laa la waatal bu ma dajawaatee moom du ma ko nuyu. loolu da laa metti non daf ma metti xam nga mu metti ma. parce que dara jaru mi nga xam ne mooy woykatu kullu fadili ndaanaan ku mu maaseel jamono bàyyi nga ko xel Kumba Gawlo bu yàggul dara rek woo ma fii di maa ngi seetaan say affaires et tout te pourtant Kumba Gawlo mag la te laay jaañ moo moom mu firi daje naa moom Paris foogoo di ko mbalak nii mu tëdd nii si benn kii di yuuxu ni ma naan kii ne bajaan xoolal xoolal kolosaar bi ndeysaan kii ba moytul gëj na si dëkk bi te xaw moon Viviane dafa muuru woon kanam gi ma di ko reetaan naan xoolal kii yow ndeysaan kii xam naa gëj na dëkkam nekk si Viviane moo doon mbalak nit ñi noonu sàngoo benn affaire di yuuxu est-ce que comprendre nga titi seen kër laa doon fréquenté titi mii bu ñu mësaan a bëgg dem papa Ndiaye coppet jarbaatam daf may wokk ne ma titi ñëw na kaa leen yee dem ñu fekk ko néegu di ko woy mu may ñu xaalis ñu daw dem soirée papa Ndiaye coppet tropique est-ce que comprendre nga kon man je me suis dit que amul aw ma artistes yi ñoom ñëpp kenn ku nekk démb laa la xam xaw ma ci kenn tey nii. mais mais mais xam naa ne loolu metti na metti na ma daf ma metti xam nga lu tax daf ma metti xam nga lu tax dama xam ne daf ma metti parce que dama dama xam ne man ak moom waruñu woon séq loolu parce que nag démb la est-ce que comprendre nga Sahel moo ñu boole buntu Sunrise Sahel ba Salam Diallo doon tëgg. looloo ñu boole kon man am na loo xam ne su ma ko defee dafay ñaaw parce que mënumaa toog nii. sama beneen nawle artiste ñëw toog sama kaw ngay nuyu kii di wax ak ñi nekk sama ginnaaw ma di la nuyuwaat ma demaat fekkaat la ba fi nga toog di la nuyuwaat nga ne ma pourtant dégg naa la loolu rafetul te jàmbat naa ko yónni naa ay nit pour def ma naqari parce que jote wuñu dara lu tax mu bañ maa nuyu nañu waxante rek jotewu ma ak moom dara ñu camp man maa ngi maa ngi Sika Foire yow yaa ngi feneen est-ce que nga kon artistes yi dañu arrêté des fois li nekk problème yi bu fekkee loolu kese la fii ñëpp stressé nañ ko rafetal mais nag di romb sa nawle bañ koo nuyu amul njëriñ man boo mu nuyuwul sa téeméeri morom ñi ngi may romb di ma nuyu te yow sa nuyoo sax dèjà bëggatuma ko te doon xam naa dootuñu te ndax su ma ko fekkee fen dinaa nuyu ñëpp te loxo laay joxe ba yegg ba si moom tëb ko barke Alaaji Malick ku ma def dama lay bëgg a def xam nga lu tax aar bi dafa bëri nappante te fii loo mën a woy ba foogoon yaa daq woy boo jegee Kumba Gawlo da ngay barki rasulillah loo mën a woy mën a woy mën a woy ba jege Kiné Lam da ngay xaar. mais est-ce que est-ce que audio woo ko ojowuma ko ah ojo man du ma def loolu gis nga man kaay ma la xamal lu tax man du ma ojo non non man boo ma enregistré boo ma jàppee non dama naan la yàlla bu mu fekk ma doon ma doon enregistré Yacine <laughs> yaa non enregistrement yi kaay la Yacine daf si am ñoo xam ne dama lay wax ne la li tax enregistrement yi am du ñëpp ñoo ko ñàkk seen téléphone yi est-ce nga am na si ñoo xam ne loo wax ak ñoom bu subaa di nga ko waxaat kon lu ñuy wax rek da nga koy gàdde record call la tudd mais man li ma contre mooy may wax ak sa nawle ngay wax ak moom wax ak moom ba mu neex te ki nga waxal da nga koo wóolu Yacine du ñëpp la ñuy waxal de tey xaw ma la xamuloo ma Yacine nga woo ma ni bëgg maa dugal ci benn gaamu waali wala gaamu Pape eh, da ngay arrêté parce que xaw la sa naa la woowaat laa lay wax. mais mais ñooñu dafa mel ni ñi ñi nga xam ni xam-xam nga ne xaw ma la. waaw ñi nga xam. waaw mais loolu yëfi yëfi baadoolo la man falaa ko teg parce que man du ma mere ka doon wax parce que ka doon wax ka mu wóolul la doon waxal ki may mere mooy ka ko génnee est-ce que comprendre nga te ka ko génne booy xool def lu bon Sénégal lu déggoo li ma la wax xanaa doomu chinois bi ndem bu meree lay defar ay pat waa ñun bu nu meree ñun lu yàq rek la ñuy def. moo tax ma laaj la ndax kooku déggu sa enregistrement sa mbokk artiste boobu tëb la. non non non non non kooku dafa tàmm loolu rek. non non non xuloowuñu jotewuñu kooku du ma moom parce que bokkuma ak moom rang du ma joteeg moom wax yàlla yàlla dogal na loolu. man sama jikko mooy loolu kii toog nii ñoo bokk ndey ak baay est-ce que ma la gën a xam téeméeri yoon mais man je me suis dit que artiste bu ma rombee nuyuwuma ça me fait mal te ndax daf ba bëggoon naa dem këram pour wax ko parce que loolu sax ça me fait très mal fu ñëpp toog parce que ñëpp dañ ko seetlu ah ñoo ma doon wax yow lan nga na loolu mais nag na arrêté loolu damay fayu Alaaji Malick laa la waatal du ma ko baal loolu nuyu est-ce que comprendre ëpp loo ma dara nag loo mën a mën a mën a pour la ma koy woo pour la ma koy woo téléphone su ma ko woowee téléphone mu wax ma lu man lu nag parce que moom dafa doy waar te gën a garaaw loolu rafetul non non moom dafa xamadi ba bu rombee nit ñi du leen nuyu boo ma rombee di nga fekk ni maa la gën a xamadi ndax su ma la rombee du ma la nuyu moo kenn daa yaa ngi dégg dafa am bëgg am ñu bëgg ñeneen am ñu bëgg keneen mais fekk ma si biir nit ñi jotewu ma ak yow dara te man maa ngi koy fàttaliku ma ne ko Sunrise ak Sahel laa ko xamee wax mu yegg nag dafa ko moom moom bu dégloo li dina xam ni moom laay waxal seen raaj laa ko xamee ak sayel kon moom na def ndànk mu dal ni mu bëgg yéenoo aar bi noonu du du noonu. boo fekkee say lu ko mais pour a métti clip bi xaw ah bu bi méttee loolu clip bi nag moom ku mu metti da ngay wax ak yàlla ndax xamul tax man nee naa leen du mën a way du dara suñ borom a ci teg jàmm ndax bi ma ko tegee sama yaay ko njëkk a fecc est-ce que comprendre nga li ma donc man aw ma bu dee clip bi moo na son na songi ñeneen ñi maasel jamono de man aw ma kenn ku ma fi tollool fi man maa mujjee ñëw man xeexu ma xulóowu ma aw ma concurrence ci artistes franchement aw concurrence de xanaa waali laa cible teg ko bët nii a Pape Diouf man loolu moom maa tay waali moom ko teg nii bët te démb gis naa ko te ku ma enregistré maa tay te ku ma enregistré nag moom wax dëgg yàlla eh soo ma enregistré ba ne ma kaay kii de ne maa tay laa la wax ba ko tegalee parce que soo ma jàppee xam ni sama baat <laughs> maa ngi tàggatoo di gërëm ñëpp nag ah di sant ñëpp di wax waa BZA dimbali leen ñu ci lii waa SODAF dimbali leen ñu ci 2015 ba tey sama ay œuvre ñi ngi fa yoo xam ne fayagu leen ma dara ngoone nduur Ndour tata Ngone nduur maa ngi lay wax ne la yóbbante woon naa ko ker def naa la un clin d'œil mais lii lu ma naqari la parce que artiste dafa war a xam droit am am naa carte bi te cent francs mosu leen ma ko fay lijjanti leen ma sama ay dossier ministre de la culture nag ñun xamuñu la génnal ah génnal de ministre bi na génn de ñu xam ne li tax parce que li ñu naqari dafa bari na artistes yaa ngi de ah Yacine artistes yi ñi ngi ñi ngi feebar ñu leen di ñaanal ndimbal du yoon artistes yi ñi ngi feebar ñu leen di ñaanal ndimbal du yoon artistes yaa ngi feebar ñu leen ñaanal ndimbal du yoon ministre de la culture na jàpp si loolu bu ñu xaar ba kenn feebar cadavre daanu ñu doog la yóbbu sa kër ay xaalis amul njëriñ jox leen ko ko bi muy dund ah mooy loolu nag Pikini kontaan naa ci yéen tëj naa ba tëji jot